aton xaw ma wax naan moment bi muy wax nii mooy moment bi may wax ak yéen nii nee na ci jamono ji maa ngi biir bureau Elimane Lam di jël xaalis billahi lazi laa ilaha illa huwa moment bi may wax ak yéen nii maa ngi jóge sali di dem Bambey maa ngi nii ci biir ci autoroute bi jóge Saly di dem Bambey Dakar démb laa fa jóge billahi lazi laa ilaha illa Eliman Lam bi ma ko gëjee gis ëpp na ay weer Eliman Lam sama ngénte la ñëw euh, mu teg ci ay fan ma dem seeti ko pour sargal ko ndax li mu ñëw sama ngénte ñu toog waxtaan jeex na xalaatuma seq ak moom alal ci kaw suuf grand la may woowee sequma ak moom mu may woo naan daf may jéem a koromp ak moom booba xeetu yabel seq ñu loolu li ñu seq mooy ay relation jàmm muy sama rakk may magam ñuy waxtaan ci réew mi billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa yàlla na ma yàlla àtteeg ñi nga xam ni heure bu ñu xëyee ñu ngi fen di wax loo xam ne du dëkk di yàq sama der di inventé loo xam ne teguwul fenn di ma ko wax te lend lañ ci jublu mooy yàq ak wax lu bon te teguñu ko fenn fen fenn fenn fu ay fen parce que moment bii kii di wax di wax mel ni savant mel ni ko xam te li muy wax lépp ay fen la parce que bi mu koy wax maa ngi nii maa ngi nii dépassé naa Thiès jublu jublu Bambey mu ni waxtu wi man maa ngi ci biir bureau Elimane Lam di jël xaalis non Sénégal metti na trop c'est-à-dire que fii vraiment euh, toog fi nekk ci jàmm noppi nañu xam ni lépp lu ma am man Cheikh Yérim Seck dama ko liggéey ñàkk ko di ko dundale sama njaboot. man su ma doon jël xaalis danaa taxawee ci Sénégal wala may waxee neneen lu dul ni may wax bis bu ne dem rek maa ngi koy sam benn xarit tous les jours que je fais je parle contre mes su ma neexoon def ni ñëpp Sénégal mais defuma ko nañ ma bàyyi ngir yàlla nañ ma may jàmm ngir yàlla ah, wax ji ëpp na ëpp na te du dëgg te tegul fenn te tooñ la maa ngi ñaan yàlla ci ci barke salaatul yi xoolal ci weer laa jóge ci barke salatul fatiha yi nga xam ne moom lay wert kii nga xam ne moo ni man maa ngi bureau Elimane Lam bu fekkee ne maa ngi bureau Elimane Lam di jël xaalis yàlla na ma yàlla alak su fekkee ne nekkuma bureau Elimane Lam di jël xaalis yàlla na ma yàlla àtte ak moom parce que da ngay sonn Sénégal da sonn c'est-à-dire da ngay dem ba jeex da lay topp ba nga dee mais ça suffit ça suffit doy na sëkk yëguloo fekke woo ñu fent wax yu ñi